bismillahi arrahmani arrahim allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa nasiri alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim wa radiya allahu tabaraka wa taala an saxaabati rasulillahi صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعتيه بنظرة تأتي لنا بظهره الحديث السادس juróom-benneelu xadiis nee na an nucmaani mm-hmm. jëlee nañ ci sayidna nucmaan mm-hmm. bin bachir mm-hmm. di doomi sayiduna bachir moom ak bàyyen yëpp ay sahaaba yonantu lañu sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne radiallahu taala anhuma ne yàlla boole leen gërëm bachir mooy baayam bashir doomi amr naaman ibnu bashir bin amr ñoom ñaar ñëpp ci waa saar lañ bokk ay asxaaba yonantu lañu alayhi salaatu wassalaam lansaar ñooy ñi dalal yonantu madina awsu la woon ak xasraj yàgg lool ci xeex bi yàlla yonantu madina gannaaw bu mu tuddee Yasriba mu tuddee ko madinatu rasulillahi sallallahu al madinatu l munawwaratu bi anwaari rasulillahi dëkk biñ leeralee leeri yonant alayhi anas nee na bés bi yonant madina mooy bés bi gën a leer ci àdduna ñeel madina mm-hmm. waaye bés ne yonantu sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna hmm. mooy bés bi gën a lëndëm ci Madina ñu hmm. dikkee nag lañ soppi tur wi tuddee ko Madina hmm. dana ko tuddee Taaba dana ko tuddee Tayba dana ko tuddee Daarul Imaan ñaari giir yi nag nga xam ne ay mbokk lañ waaye jubóowuñu woon yàlla boole leen ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam bañ mujj gën a jaxasoo soow dun dindi laws dindi xasraj ne leen yéen dimbalu yàlla ak yonentu ngeen yéenay dimbalee diine yàlla ji ni Seydina Isa waxoon ñu àndoon ak moom man ansaariya ila allah qaala alxawaariyuuna nahnu ansaarullah ñi di jógee Makka gàddaay si tudduñu Quraysh tudduñu euh, banu Haashim tudduñu banu Muttalib tudduñu banu Umayyata waaye muhaajiroona lañu hmm. mooy ñi gàddaay jëm ci yàlla ko yonentam hmm. yéen nag yéenay ansaarullahi hmm. wala yéenay ansaaru diinillahi sayidna Bashir mi nee na qaala nee na samictu dégg sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne inna alxalaala dëgg-dëgg inna xarfu tawkid la dafay feddali inna alxalaala dëgg-dëgg li dagan bayinun leer na naññi inna alxalaala naka lu dagan bayinun aji bir la aji leer la wa inna alxaraama naka li xaram tamit bayyinun aji bir la wa baynahuma aji nekk la ci seen diggante nag xalaal ak xaraam mushtabihaatun ay mbir yoo xam ne yu lënt lañu jafe jafe ràññee ba la laa yaalamuhunna xamut leen kathirun lu bari min annaasi ci nit xalaal hmm. lu leer la ci li la yaxal ci alquran ne hmm. lii lu xalaal la hmm. ni ki waxam jim ne uxillat lakum bahimatul anaam ñu xam ne bahimaa yi juri kër yëpp dagan nañ yuy gëlëm nag ak xarak bëy ak lim ne wa axalla allahu albaya ñu xam ne njaay Mm-hmm. dagan na mm-hmm. feek mi ngi tudd njaay mm-hmm. maanaam feek wor mbaa euh, riche duggut ca wa inna li yàlla yaxal ci alquran baa yonantu yaxal ko ci xadis ne lu xaraam la lu leer la ni ki waxam ji mu wax moom yàlla ne ne na wa dëmu ñu xam ne deret xaraam na wa laxmul xinziiri ñu xam ne yàppi mbaam xaraam wa ma uhilla li gayrillaahi bihi ñu xam ne luñ rendil kudut yàlla xaraam na wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bilxaq ñu xam ne rey ci lu dul dëgg xaraam na ak wala taqrabu zina ñu xam ne gannaaw jege ko la tere njaaloo kon xaraam na innahu kaana faaxishatan mu feddali ko sax ne lii dee dëgg-dëgg ñaaw teef la wasaa na sabilan ci yoon léeg-léeg mu boole li xalaal ak li xaraam sax ci jenn jumla wa xalallahu lbaya wa xarama riba hmm. mu yaxal daganuk njaay hmm. yaxal xaraam riba hmm. lépp lu yàlla yaxal mbaa yonantam ne xalaal na leer na naññi luñ yaxal ne xaraam na leer na naññi moo tax ne inna alxalaala li xalaal bayinun leer na mm. wa innal xaraama li xaraamit bayinun bir na mm. wa baynahuma mm. aji nekk la ci seen diggante nag mm-hmm. ay mbir yoo xam ne mushtabihaatun way lënt lañu mm-hmm. diggante xalaal ak xaraam mm-hmm. imaam alxaafid ibnu xajar ci fatxul baari nee na mbir benn ñu yaxaluk sàkkoom ànd ak tëkku baga mbaa ñu yaxaluk baxam ànd ak tëkku def ga wala duñ ca yaxal benn ci ñaar yi loo xam ne yàlla dafay sax dafay yaxal ne lu sàkku lañu def ko ba pare tëkkuñu ci buñ ko bañee def loolooy lu xalaal lu leer nañ mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. loo xam ne yaxal nag ak sàkkoom hmm. ba pare ñu ne hmm. euh, buñ ko bayee mu mbugal ñu hmm. mu ne looloy xalaal mu ci jublu rek lu ñu war a def fii ndax loolu farata mooy loolu farata lañ ko daan firee walla lu yàlla sàkkuñu ba ko ba pare tëkkuñu ci buñ ko defee mu ne al alxaraamul bayin mm-hmm. bu ne alxalaalu bayinun mm-hmm. alxaraamu bayinun mm-hmm. mooy soxlaatut leeral soxlaatut leeral mu ne ñetteel bi nag mooy li lënt ngir nëbb gim nëbb ba mën naa am duñ xam ne xalaal na wala xaraam na lu mel nii nag li jaadu mooy teet ko ndax su fekkee ne xaraama ci nga mucc su fekkee ne xalaala ngi ci bàyyi gi ko bàyyi ngir jublu euh, sàmm sa digganteeg sa borom ba bañ a dugg ci lum xaraamal mm-hmm. bàyyi xalaal ga nekk ca loola dana la juralub yool mm-hmm. wa baynahuma mushtabihatun mm-hmm. laa yaalamuhunna xamut leen kathirun lu lu bëri min annaas yi ci nit ñi li mu wax ci alquran ne laa naka la ko waxeeti wa uxaru mutashabihat fa amma alladina fi qulubihim zaygun fa yattabicuuna ma tashabaha minhu butigaa alfitnati wa butigaa taawilihi wa maa yaclamu taawilahu illa allahu warraasixuuna fi lilm gannaaw man mbokk ma ci raasixuuna fi lilm yi lu lënt li may musal mooy ma téye sama bopp bañ koo def ba mu leer ma ne ma xalaal na ma def bu ma leeree ne xaraam na ma continuer baga yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam daal di ne faman hmm. ku teet na mu hmm. ashubuhaati hmm. way lënt istabraa setal na li diini yi diineem wa irdihi ak deram waaw ñaari mbir yoom solo setal sa diine ba baaxul du ca tàbbi mm-hmm. setal sa der mm-hmm. ba du tilim mm-hmm. war naa wax tax doomu du yàkkamti dugg ci dara feeg leerut ko ne lu xalaal na mu soog caa dugg mbaa lu xaraam la mu ba waaye borom xam-xam yi dañ cee wuutee rek tax nga ne ah, kon lu ma neex def déedéet yow déglul ba xam li nga xam ne moo gën a dal xel mm-hmm. te moo gën a dëppoog tegtal mm-hmm. ci li boroom xam-xam yi wax mm-hmm. su fekkee nag ñaar yooyu benn dalut ci sa xel benn leeru la ci sa tegtal ci tegtal li gën mooy nga ba ko defee sa diine ñoŋ sa der ñoŋ waaw loolu yonentu wax fi fa man ittaqa shubuhaati képp ku teet yi lënt mm-hmm. a setal na mm-hmm. li diini yi diineem mm-hmm. wa irdihi ak deram istabraa istafaala la sàkku naa setal mu joxe nag misaal moom yonantu sallallahu alayhi wa muñ mën a gis ndax aadama boo koy jàngal te misaalaloo ko mm-hmm. mën naa mu dégg mm-hmm. mën naa am du mm-hmm. naa am dégg wax na la nekku bàyyi yi lëndëm sa diine ñoŋ sa der ñoŋ tey jii fi doon jaar ci yoon ñuy déng déng ndax yoon wi wóor na walla wóorut bu fekkee waroom xel nga dangay bañ a jaar ci yoon wa rek waaye boo xuusee jaar fa mm-hmm. lu la jot mën naa mën na ñoo ne fa nga xaru mm-hmm. comme ñii nag mm-hmm. ay sàmm la ki yarkati jur mu jox leen misaal moo xam ne danañ ca déggee loola te ñun ñëpp danañ ko ca déggee mu ne karraayi mi ngi mel ni aji sàmm yaraa koog dana sàmm juram xawlal ximaa ci wàllu lakk xam nga lakk lakk waaw mooy fépp foo xam ne rek hmm. euh, dañ koy tere acheyul mamnuu hmm, hmm. dafa bokkoon ci aaday giiri arab yi su amee suuf soo xam ne dafa naat ami garab ak i ñax ak yooyule ñu làkk ko ñu ko làkkee dégg nga di fa yóbbu seeni jur ñu di fa sàmm nga xam ne ku gis lii xam ne diwa ko moom doo fa yóbbu say jur moom lay wax ne karraa yi mu ngi mel ni kiy sàmm xawlal ximaa ci wàllu làkkub jàmbur lan nga bëgg a wax foofu yow yonentu sallallahu alayhi mu ne yuushiku su wëttuut xaw na an yartaa sàmm fii ca biir làkk ba bu fekkee ne am nga làkk boo gis nga xam ne làkk bi làkkub jàmbura lii tax ba doo tooñ bu fa yóbbu sa jur gi boo yoree lu mat téeméeri xar mbaa téeméeri nag mbaa téeméeri bëy mm. nekk ci pegg làkkab jàmbur mm. balaa ngaa xool rek fekk am na benn mbaa ñaar mm-hmm. yu daw dugg ca biir làkk ba lekk yëfu jàmbur mm-hmm. soo bëggee mucc ci lool nag mm-hmm. da ngay sori làkku ba bay da sori làkkub jàmbur boobee moo tax mu ne ka raayi ngi mel ni aji sàmm yaraa dana sàmm xawlal ximaa ci wàllu làkk ci wàllu làkkub jàmbur mm-hmm. yooshiku xaw na mm-hmm. an yartaa muy foyt mm-hmm. fii ca làkk ba mooy ay gàttam ruur làkk ba lu tax dafa ko jege ku dugg ci lu lënt it jege nga lu xaraam ba boo moytuwut da nga ca dugg ku bëgg a wëttu lu xaraam da ngay lu lënt ku dugg ci ab ci lënt yaa ngi ci wetu lakk mm-hmm. xaraam te boo moytu rek nga tàbbi ca mm-hmm. te sax doo ko yëg mën naa mm-hmm. mu ne alaa waawee alaa dama ne wa inna li kulli malikin naka ñeel na bépp buur ximan ab lakk alaa ma ne wa inna xima allahi naka làkkub yàlla maxaarimuhu mooy yim xaraamal maxaarimuhu mooy woy xaraama mm-hmm. yi mu tere mm-hmm. buur bu nekk mm-hmm. am na xima am na foo xam ne tey boo fa demoon ci dëkk yi am buur mbaa yenn njiit yi sax gouverneur la wala président la am na foo xam ne boo fa accès daa fekk garde yi taxaw kenn du fa dugg xanaa ku buur bi may ndigal ni ko buur yëpp amee nag moom dem palais royal la wala présidentiel la hmm. bu yàlla gën yeey hmm. moo gën a rëyit te yàlla gannaaw duut koo xam ne nii jëmm juñ bind la hmm. mbaa muy ku dëkk ci bërëb buñ xam ah, ximaam moom mooy yim tere rek lépp lum tere rek ko bar palais mm-hmm. royal bu buur bi ku ca dugg mm-hmm. fépp ku fa demit jàppee ko noonu mm-hmm. ala ma ne wa inna ximallahi naka lakkab yàlla maxaarimuhu mooy woy xaraama aha ala wa inna fil jasadi naka nekk na ci jëmmu hmm. mudduxatan ab lan lanc lañ koy hmm. waxati hmm. mudduxatan ab lanc maanaam aw dogit dogit su baaxee salaxa baax aljasadu yaram wi kulluhu léppam ida salahat ndem xéwén na salaxa xéwén aljasadu yaram wi kulluhu léppam ida salaxat ndem yiw na salaxala yiiw aljasadu yaram wi kulluhu mm. ida salaxat ndem wér na mm. salaxa wér aljasadu yaram mm-hmm. kulluhu léppam mm-hmm. wa ida fasadat ndem feebar na mm. fasada feebar aljasadu yaram wi kulluhu wéppam mm-hmm. wa ida fasadat ndem yàqu na fasada yàqu aljasadu yaram wi kulluhu léppam alaa ma ne wahiya daggit woowu ma ma tudd al qalbu mooy xol rawaahul buxaari wa muslim dogitan ci yaram woo xam ne xéwénuk yaram ci moom la xaju wétak yaram ci moom la xaju waaye yàquk yaram ci moom la xaju muy xol ndax xol deret ji nga xam ne mooy circuler ci yaram wi hmm. ci xol bi lay jógee hmm. di circuler ci biir yaram wi hmm. bés bu xol bi taxawee rek deret dootu circuler bu ko defee yaram wi dee waaye ci maanaa it xol boobu su setee baax yiw ragal yàlla yaram wi yëpp set baax yiw dégg nga ragal yàlla xol boobu nag hmm. mooy gis hmm. waaye du bët yi eh, kanam yi ñu xam hmm. sama borom ne na fa innaha laa taama l absaaru walakin taama al qulubu allati fi suduri bët yi dee duñ gumba waaye xol yi ci dënn yi ñooy gumba su fekkee ne xol bi yéwén na borom dana wattu yi lënt bu fekkee ne xol bi nag ak yiw newut ci mm. ak ragal yàlla newut ci mm. nit ki du faale mm-hmm. te ku faalewul yi mm. bu yàggee rek doo faale yi xaraam mm-hmm. kon yëf yi yëpp na xol bi la rek mm-hmm. xol bi mooy def mooy jox yàlla céetam ba du ko boole kenn mooy gumba it ba yàqu ba tax mu dugg ci kéeféer ak ci bokkaaleeg xeeti yàqu-yàqu yëpp alaa wa inna fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu xol mu ngi mel ni buur rek buur bu yéwénee am fulla dégg nga ñi ko topp yëpp yéwén waaye buur bu yàqoo ñi ko topp yëpp yàqu moo tax xol bu baaxe cër baax bu xol bonee cër yi bon mm-hmm. moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu jàngale daan mm-hmm. bari lu muy wax mm-hmm. yàlla yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi yàlla na nga saxal sama xol ci diine allahumma yaa muqallibal quluubi ñëw na ci riwaaya yaa muqallibal quluubi wal absaari thabbit qalbi ala diinika Eh, yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi hmm. ak abusaar yi hmm. fa innaha la taamal abusaar waaye fi mu ngi ci jublu hmm. absaar dëgg-dëgg yi sabbit yal na nga saxal xol xol sama xol ala diinik ko defee ndey Aïchatu ne ko eh, eh, daal di laaj loolu nu mu demee yonentu ne koy ndey Aïcha moo luy tax mo am kolu kóolute maanaam luy tax sama xel dal hmm. te xolu jaam yi ñu ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraami rahmaan hmm. su ko neexee mu jàllar bi xolu jaam bi hmm. ida araada an yuqalliba qalba abdin qallabahu su ko bëggee jàllat bi rek jàllat bi ko hadis ji ñu bari ci saxaaba yi solo nañ anas aisha umu salamat jaabir mm-hmm. moom xolam du mos a jàllar mm-hmm. waaye ñun lay jàngal mm-hmm. moo tax doomu aadama fu mu toll rek na sonnee xolam gën caa baax ci façon ngi sonnee nag mooy ñaan ñaan yàlla sàmmal ko xolam ba yàlla rek a ci ne mm. ba yonantu rek mm. mm. a ciy ne ba alxuraan rek a ci ne ba topp rek a ci ne ba njub rek a ci ne musal ko it ci yàqu ba nga xam ne dafay bëgg di def lu neexut yàlla dafay bëgg di lekk lu xaraam dafay dafay dafay bëgg di xool lu xaraam dafay bëgg di déglu lu xaraam dafay bëgg di toog ak ñu koy wax baa ñu koy def looyu xaraam mm-hmm. su ñaanee yàlla sabablu rekk yàlla dimbale ko ba léppam dafay dëppook xalaal mm-hmm. waaye léppamit dafay wuuteek xaraam mm-hmm. te nag bokk na ci sabab luy mm-hmm. waxuma la teet xaraam waaye li lënt sax nga teet ko na yàlla def suñ mbir yëpp tegu ci xalaal tàqale ñoog xaraam soliloo ñu lépp lu lënt yaa rabbi hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin ya rabbal alamin